asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 21 juin 2019 ñu ñëwee si yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey mu mel ni sunu làmb la la tribune Leewtoo TV wala Leewtoo point net jàppal bu dee sunu làmb la yëglikaay ba nag mu nga xëy ñëw dinu wax kii nga xam ne nii moo di Gris 2 wala mu nuy wax boog écrit face daal fi mu nekk nii day daa mel ni nag woote am ndëpp ci la ñu toll maanaam daal nag li nga xam ne nii nag. moo ñuul ci biir soow mi woote nañu waxtaan day la ñu bëgg nag mooy génne ko ci soow mi mu mel ni ki nag sunu làmb ñëw na nee boo jàppee defet bi nga xam ne Gris am na ko Lagros mi nga xam ne blessé na bañ a faju Papa Sow ay mbiram ak sa saison balance bi nga xam ne Gris Bordeaux def na ko mu mel ni ki nag face fi mu nekk nii daal yëglikaay bi daa jàpp ne day ah maanaam daal lu neex waaye def la sawar gu tas daal lay xaw a niroo ku nekk dangaa jël sa yoonu bopp di dem di doxee na la neexee mu mel ni ki nag loola mu leen indil ay jafe-jafe ba tax nag ñu fas yéene woote ndëpp waaye Abbas Ndoye may président ba nee na loolu moom amu fi déedéet maanaam daa sabar gu tas moom buñ koy wër nañu dem feneen te bañ koo xool sacrifice ndax loola amu fi li leen war ñu nga ca nee na kii nga xam ne nii nag mooy Gris moom Abbas Ndoye mooy wax de nee na xëy na liggéeyul loo xam ne nii daal ci wàllum physique ak doole moom lu daan rëg-rëg la Abbas nangu na loola nee na li ci des tamit nee na bu dee Lac Rose moom li leer ba leer fan yu néew day lii nga xam ne moo di mbiru tànkam boobu moom dana dem faji ko Abbas Ndoy mooy wax mu mel ni ki tamit Tafa tamit mu ngay naqarlu li nga xam ne mooy préparation wu Gris 2 Tafa mi directeur technique u écrit ba moom it mu ngay wax soose tamit moom la moo xam ne daal mooy entraîneur ba li ne mbër yi tamit dañoo war a xoolaat li nga xam ne mooy seenu comportement ndax daal taxawaay bi moom war nañ koo xoolaat te jéem koo defar bu baax a baax a baax mu mel ni kii daal loolu tey mu ngi xëy ne ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb ñaari mbër yi nga xam ne nag dañoo bëre ba daanante muy Gris 2 ak rëg-rëg laa tribune day wan nañu leen ci photo woo xam ne bokk nañ ko fa nga xam ne moo doon démb ca kër Bougane Gueye Dany lii nga xam ne ni nag moo di tarafe ba ñu koy joxe Bécaye mbay taxaw Bougane taxaw Luc Nicolaï Gris 2 ak rëg-rëg la tribune moo xëy tey wax ñu lu ni mel wan ñu ko ci ay photo waaye bu ñu ñëwee ba tey rek des ci mbir moomu ndax duñ ko sori ndax kii nga xam ne ni day moo di Abdou Bakhoum ci diggante Ama ak rëg-rëg moom noppeegu ca Abdou baaxum mooy mënaat seeru Ama Baldé nee na li leer ba leer nee na rëg-rëg na xam boppam ndax nee na day palaa bi nga xam ne moom la Ama di sukk di ca lekk rëg-rëg du ca lekk wala boog sax cel taabal ya nga xam ne ca lay toog di lekk day bokkuñu taabal yi ñuy lekke ñoom ñaar kon daal daa war a xam boppam loolu Abdou Bakhouma xëy tey di ko wax ci yëglekaay bi nga xam ne ba tey moo di sunu làmb waaye ba tey dañuy continuer rek ñëwaat ci yëglekaay boobu ki nga xam ne ni nag moo di Moustapha Diop moo tëg Eumeu seen ak ki nga xam ne moo di Modou loo Tafa Diop day la mu xamle daal nee na combat boobu day boo bëggee dégg dëgg moom stade Léopold Sédar Senghor fa la ñu koy tëgge loolu daal mooy di ay waxam moom mii de mii nga xam ne moo di Moustapha Diop waaye Matar ba day mi yor sport bi nag dafa mel ni daal nee na li leer ba leer moom la mu xamle daal mooy na leer li am ba des day amut benn làmb boo xam ne day affiche boo mën a doon boo xam ne doo ame ci national ba wala xajoo fa mu mel ni ki neel foofu kon moom jàppal ay wax commencé na faa jóg waaye leneen loo xam ne tamit duñ ko sori ca combat boobu la ba tey mu mel ni kii nag fi mu nekk nii day léegi ñu dugg nag ca bési dëgg ya moo tax suñu làmb xamuñu day moo moo loo semaine bii ñu jëm day fas naa yéene nag ñëw fii nga xam ne moo di ndakaaru suñu làmb xëy tey diñu jox boobu information wala yooyuy wax waaye leneen loo xam ne tamit gis nañ ko fii nga xam ne nii moom moo di ci yëglikaay bi mu mel ni ki nag le 29 juin day di tombeek samedi yëglikaay bi na jàppal ab jàkkaarloo ndaje mu nar a méttee mu monument de la renaissance lay ame war a dox ci diggante Lac de Guiers numéro 2 ak booy Niang foofa nag Baye Ndiaye borom alburax moo fa jaar yëglekaay bi xëy ñëw wax ñu ko waaye am na leneen loo xam ne ñëw na ci muy papier bu yaatoo yaatu boo xam ne day hommage lañ ko mën a tudde te nag yëglekaay bi di sunu lam na na 2016 lañ ko defoon Aysatu Fay ma nekkoon sunu lam ci jamono jooja moo ko defoon ci Mor Fadam te tey mu nekk Leewtoo point net wala Leewtoo TV mu mel ni ki nag bàyyi ko dara parcours am fa mu jaar nee na ba mu amee juróom-ñaaret daal la commencé bëre fa mu jóge ca Louga ba ñëw ci Ndakaaru ak ka mu njëkk a bëreel lépp yëglekaay bi da caa ñëw mu mel ni ki nag 74 ba tey mu nga woon ca làmb ja waaye jàppal carrière internationale am tamit ñëw na ci mu mel ni kii nag moom Jeux africains yi nga xam ne amoon na Égypte day bokkoon na ca ca Caire moom Mor Fadam loolu itam mu nga amoon ca atum 91 mu mel ni kii daal tey yëglikaay moom tamit ñëw na ci lu yaatoo yaatu ci mbir moomu ay combat lutte avec frappe am itam ñëw na ci derby yi nga xam ne wala combat frappe am yu méttee métti digganteem ak Manga 2 Tafa Gueye tubaabu joor ba ci duuba lees loolu lépp ay wax la yoo xam ne day ñëw na ci déception si làmb tamit combat ak Tyson la ba mu ko bëreeg moom ca Gàmbi la ca amoon ñu ñëw fii ci ndakaaru lam ci jële mu jële ko ci ci kaw mu mel ni ki daal loola ñëw na wax ci waaye regret nam nee na maanaam amul daal loo xam ne mu ngi koy réccu ci làmb loolu di waxtaan woo xam ne sunu làmb noo xam ne day seqoon na ko ak Aysatu Fay ca atum 2016 ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb waaye dañuy dem fi nga xam ne tamit moo di Leewtoo point net mu mel ni ki nag jàppal wàllum sa li nga xam ne ñooy drapeau c'est l'État moom woote ba daa mel ni léegi mu commencé mu mel ni ki daal bés yi nga xam ne ca la ñu war a dem moom ca mbuur ah daa mel ni jege na waaye ba tey ñu ngi ñuy xamal ne daal jàppal équipe bi nga xam ne day mooy bu Tamba seen juróomi mbër moom xam nañu ko 66 kilos Abdou Mbaye la 76 kilos kii nga xam ne nii mooy Cheikh Tidiane Cissé 86 kilos Abdoulaye Sall ki nga xam ne mooy 100 kilos mooy Samara Sarr yëglikaay baay wax ba tey 120 kilos ba Mouhamadou Moustapha Sall la yëglikaay bi sunu làmp wala Leewtoo point net moo xëy di ñu wax loolu leneen possibilité boobu moom délégation yi jàppal Leewtoo point net mu ñuy xam ne day le 27 nag la fa fas yéene nag jawali wutali fa nga xam ne moo di mbuur waaye leneen loo xam ne day am na muy le 23 juin di dimanche jii nu jëm day boo bëggee dégg dëgg arène Adrien Senghor Leewtoo point net mu ngi ñuy xam ne nag drapeau ba kenn lañ ko tudde muy Pape Thialis Faye mi nga xam ne mooy président wu Leewtoo production di borom miir boo bëggee dégg-dëgg daal daa mel ni comme samedi wala boog dimanche ah arène ba wala Adrien Senghor nar naa jax ndax nag sunu patron lañ fa tudde drapeau maam jaaraa ko def man damay dem ay Aysatu dina dem yàgg maar mii sax day dem nday kumba faalit day dem xanaa kon Leewtoo kenn du fi des Taala Njaay ku ko fa dëgg nee ko massa ana biram ana ki nga xam ne mooy Rose waaye xale ya ñoom Eliane danañu dem Fleur day dem waaye ki nga xam ne mooy Aïda Diouf borom màdd yu kawe itam yaakaar naa day dem. salaamaaleykum mbokki suuf Leewtoo TV ñu leen nii bu baax di leen ziar di leen jaajëfal comme chaque jour ni ñu koy defee rek ànd ak yéen ci seen revue de l'arène mais tey nag dañ leen di baalu àq di leen baalu àq ci ajuma ji di leen ñaanal ajuma jàmm ak salaam ñu yàgg ko féete yàgg ko teewee lépp loo xam ne nii rek euh, ñaan nañ ko ci yàlla nañu ko yàlla nangul may nuyu Babacar sama mag sama xarit may ànd ak moom ci revue Babacar nuyu la. Aïssa maa ngi lay fay madame Nia sama rakk sama xarit maa ngi lay fay di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow di ko ñaanal ñëpp di nuyu ñëpp si jumaa mubaarak bi di leen wax ne yàlla nañu yàlla defal ajjuma wu jàmm te nangul ñu suñu ay ñaan di ñu feebar ñu ngi leen di ñaanal yàlla yëkkati leen wëral leen dañu dellu ci seen sago ñi ci kaso yi tamit ñu ngi leen di ñaanal yàlla fa ñu nekk yàlla na leen fa yàlla génne hmm, indiwaat leen ba yàlla defar lépp daal mu nekk jàmm nekk xéewal pour réew mi waaye tamit yàlla faj suñu ay soxla suus yëpp yàlla na ko yàlla buur bi taxawu fajal ñu ko daal di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ñi ci suuf tamit duñ leen di fàtte di leen ñaanal yàlla njéggal ak yërmande barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam barke jumaa mubaarak waaw Babacar dañuy daal di dugg ci li nga xam ne ni mooy waxtaanu tey bi tàmbale ko ko écurie Fass coow li ko fa am ñu ne samedi weekend bi incha allah écurie bi dañuy waajal euh, réunion fa sunu lamb nag réunion bi nëpp la ko tuddee parce que réunion bi ci lañu war a profité wax ci lépp loo xam ne rek mooy problème ci biir écurie bi lu dem si préparation gridé bi lu ko ñàkkloo combat bi lu dem ci saison blanche fa am ak euh, yeneen ak yeneen parce que tamit euh, président bi ak directeur technique bi ñoom ñaar ñëpp wax nañ ni préparation gridé rek rek des na. waaw loolu Aïssatou Faye yaakaar naa écurie Fass comme ni nga ko waxee Abass Ndoye wax na Tafa gi wax na Socé wax na. Mm-hmm. Abass nag c'est la personne morale. waaw c'est waaw c'est la personne morale du moins maa ngi jéggulu euh, moom mooy président écurie bi mm-hmm. yaakaar naa ne lépp luy administratif écurie bi moo ko yore ah moom nag ci li ñu mën a wax moom bu gisee taxawul ne préparation bu def baaxul en tant que président. yaakaar naa ne am na lu mu ci xam ndax su ma jumul moo leen regroupé woon te moom en tant que président yaakaar naa ku leen regroupé yaakaar naa seen i dépense li ci ëpp moom bu jógul ci posam tamit li ci ëpp bëri boog ci moom lay jógee ak ñeneen ñuy ñëw di ko si jàppale kon moom xëy na ci coté boobu li ko waroon def na ko laay wax yaa ngi dégg la ca des nag mooy eh, leneen la am daa loo xam ne tamit xëy na sax des na xëy na li ko war lépp lépp des na woon parce que tamit côté eh, taxaw bi ci côté entraînement bi tamit na xëy na waroon na cee gën a veille bu baax a baax parce yaakaar naa Abbas kenn mënu ko nax ci entraînement mm. mais tamit moom bu fekkee président yooyu mu géré ko ak li nga xam ne mooy tax mbër yi nekk ci war a ne ci kon condition yi tax ñu entraîné defe naa loolu bu ko motalee li ci des nag ñu yore wàllum technique bi rawatina directeur technique bi ñoom ñoo ciy taxaw mm. rawatina personne bu mel ni que Moustapha Guèye ak entraîneur yi nga xam ne ñoo nekk mu yilif leen ñoom Socé ñoom Ibra mbay ak ñi mel ni ki ñooñu ah, loolu nag bu fekkente ne amul ñoom dama naan am nañ ci part de responsabilité rawatina directeur technique bi ak ki nga xam ne ña ñi nga xam ne ñooy entraîneurs yi ndax directeur technique bi pour man mooy teg planning bi nga xam ne moom la mbër mi war a entraîner ci condition yi lañ ko entraîner lii lay def lii lay def du bàyyi bàyyi lii bàyyi lii tey nag bu ñu ba loolu ñu ñëw bëri combat ba ñu ne forme bi baaxul wala nangam dama naan ñoom tamit vraiment am nañ ci responsabilité rawatina directeur technique parce que loolu moom mooy li war a ama ah. mm-hmm. parce que yow yaa yore loolu yaa yore entraînement bi tey bu ñu xëyee fii revue bi melu li mu war a mel wala baaxul dañuy interpellé Babacar parce que Thialis kenn du ko tudd bu keroogee parce que jox na ay sa toog Babacar caméra ak micro ñu kuy film yaa ngi dégg kon moom la ko waroon def na ko ñu li ci des suñu responsabilité kon loolu lañ leen di wax di wax ne que boobu ñuy wax ah gën a waxtaan parce que olof nee na réeroo amul ñàkk waxtaan moo am na ñu waxtaan boo gisee nit ñi di wax naan bu tas écurie Fass wala nangam sénégalais yi am na ñuy gisee xëy na ñàkkul daam ñu xamee ne écurie Fass mu du ñu doxee bu ñu demee tey nag ba gisatuñu condition boobu moo tax xay na ñu bëri jàpp ne sabar bu tas la fu neex waaye rek tëbee jaare fa fecc tàccu <laughs> loolu nag gënul ah nañu waxtaan daal waaw moo ëpp solo daal waaye encore une fois daal te ñu partagé tamit li nga xam ne mooy responsabilité yi loolu dafa am solo trop ku ci ne xam nga la la warte defoo ko boo tëddee sa ngegenaay bu ko defee yow loola nga jéem caafee pour que ëllëg lu mel ni bañ a am waaw dañuy jóge Fass daal dem ci combat royal bi war a am euh, le 28 juillet diggante Modou Lo ak Eumeu Sène ñu commencé wax fii lay am fan la war a am kii di Moustapha Diop tëgg combat moom jàpp na ni Léopold Sédar Senghor la combat bi war a amee pour ay question sécurité ak ñu demee noonu mais kii nga xam ne ni mooy ministre des sports ak ki xam ne mooy président CNG ñoom jàpp nañ ni affiche mënatul rëy rëy rëy ba du xaj fi nga xam ne ni mooy euh, arène nationale bi ñu tabaxal pour lam parce que moo ëpp fi nga xam ne mooy démba Diop te Demba Diop jël na journée bu nekk. waaw Moustapha Diop ñu koy nuyu di ko ziar borom OK Africa di ko ñaan journée boobu mu sumb yàlla na ko yàlla dimbali mu génn ci jàmm parce que lu muy doog a def la si làmb en tant que promoteur kon ñu ngi ko ñaanal mu réussir ko. Kanta li ci des nag ci côté organisation bi mu insisté pour ara pour fële nga xam ne mooy Léopold Sédar Senghor loolu tamit li ma gëm mooy waxtaan rek ci mën a am. ak ñaan ak autorités yi rawatina ku mel ni le ministre des sports nga xam ne ñoo ñoo jiite CNC bi rawatina ku mel ni docteur Alioune waxtaan moo jiitu après nag su waxtaan amee ñu xool li tax moom mu ne ko bëgg a yóbbu parce que na lu tax mu bëgg ko yóbbu ko arène nationale amut lu fa xajul effectivement arène nationale tamit yaakaar naa amut lu fa xajul man ci làmb actuellement man Babacar loolu laa gëm ba ba may gis contraire bi mënuñu ne nag dañuy organiser fenn bu ñëpp duggul bu ñëpp mënta dugg duñ fa organiser loolu moom yaakaaruma ko moom kay dañuy organiser def li ñu yaakaar ne bu ñu dinañ dugg ñu mën a dugg dugg bu feesee bañ xam ne fees na ñu tëj li nga xam ne mooy porte ku mënul seetaan bu keroogee ca biir làmb ja nga dem jëndi sa cote pay per seetaan sa làmb wala nga déglu ko ci feneen ak feneen loolu moo mën am mais lépp lu mu mën a doon nañ ko waxtaanee fexe mu tege ci aw yoon parce que tamit réew mi dafa am kilifa am aw yoon am nu muy doxee arène bi làmb tax ñu tabax ko et tamit duñ ko tabax pour mën daanaka ay milliards yi ñu ko tabaxee ba pare bàyyi ko noonu naan combat yu mag xaju fa ndax keroog xalaatoon nañ ne Gris 2 ak Reug Reug ak mbër yi ñu ca boole woon gis nga li muy indi ci mbooloo ñoom jën kay rek ñoom caata ak armée xalaa xam nga xalaatoon nañ mu fees mais xaajul sax bay fees xaajul fees kon pour man man damaa gëm man Babacar ci ñi gëm ne amul lamb ci fa xajul ma waaw man ci ñu man man suñu làmb ko ay satu Babacar dañuy daal di seet seeti ki nga xam ne ni mooy Abdou Bakhoum di am manager ci Ama Baldé moom nag mi ngi recadré waat ñi nga xam ne ñooy wax ay waxu combat Reug Reug ak Ama Baldé parce que jàpp na ni poulain moom waxagul wax yooyu parce que ñoom ñaar moom bokkuñu catégorie yi boxee bokkuñu table yi ñuy toog di lekk. <laughs> Abdou Bakhoum c'est le manager maa ngi koy nuyu bu Ama Baldé ah. waaw moom li ma wax noonu ah wax na jëmale ci mbërëm mhm. loolu mooy li nga xam ne nii moo ko war parce que moo yor ay ay intérêt loolu mooy taxawaay bi kon loolu dañ ko koy nangul kantaa nag bokkuñu taabal ju ñuy lekk wala ndab bu ñuy lekke man Babacar rek loolu dama ci dul xaw a d'accord parce que li tax mooy ndab li leen boole pour man mooy làmb mhm. te ñoo ko bokk lamb ji mooy lan licence bi ngay am nekk mbër di entraîné nekk un champion defe naa ñoom ñaar ñëpp ku ci ne loolu yaa nga ci mhm. ama mu caw yoonam ama tey kenn dootul laajte ama lu def ci làmb loolu moom kenn nañ sañatu ko taxaw di ko laaj loolu ko ne xam na ko rëg-rëg tamit yaakaar naa kan mooy rëg-rëg ci làmb fi ne jaratul laaj ndax lit simple bi teg na ca tànk comme li ñu ko xamee macha allah lit avec frappe tamit gisaguñ ko ko ci daan ak adversaire bu ñu ko mën a indil kon defe naa nag xëy na nag mën a guñoo bëre mën naa koo xaw a dégg parce que am naa lu ma gënal parce que li ko gënal wala li mu am possibilité yi dama ko doon waxee mooy bombardier la am am na Gris Bordeaux am na Tapha ñooñ ay VIP lañu comme ni ñu koy waxe te ñooñu ñëpp ay potentiel adversaire u Ama lañ te dox nañ seen ay combat ak ñoom ba jéggoo am ja kon foofu moom d'accord naa xëy na Reug Reug nag doxaguñu combat ak Bombardier wala Gris Bordeaux wala nangam waaye nag it xëyee tey promoteur ne Ama ak Reug Reug yaakaar naa kon am na luy xeeñ kon Reug Reug mu ngi ci yoon wi di ñëw waaw kon nag nañ ko sóoraale Ama nag moom leeral tënk na wax ja parce que moom nee na du ne kenn du ma bëre ak yow parce que àddina lépp dox daje la te lépp a mën a ne waaw daal ah, dañuy daal def ci xew-xew buy amaat ba tey diggante doomu Pikine ak doomu Géejawaay muy Lac de Guiers 2 ak euh, Boy Niang le 29 juin incha allah fare euh, monument de la renaissance diggante derby derby Géejawaay Pikine musta yomb mais bii xam naa ne moom moo ci raw parce que moo na a nekk seen dernier ndaje comme ni ko sunu lamb mu defee remarque bi.

arrêté biir Géejawaay te Géejawaay loolu la ñu bëgg pour arrêté ko te Lac de Guiers la ñu yaakaar yaakaar ne actuellement mooy ki koy arrêté ah bu fekkente ne nag ñoom loolu la ñu bëgg waa Pikine itam jàpp nañ ne kii amul ku ko mën a daan Géejawaay moo tax combat bi nekk lu méttee métti kon defe naa balaa ñoo dem ci seen combat ak ak euh, open press yi loolu mooy nekk seen mujjëlu jàkkaarloo pour wax ak seen ay supporters ak seen ñi leen sopp daal muy la am am solo nañuy jógee ci lutte avec frappe bi daal doxantu si li nga xam ne ni mooy lutte simple bi wàccaay drapeau chef de l'état équipe yi continué di joxe seen i joueurs mais ba tey ñi ñuy xamal ne ci Leewtoo point net que le jeudi 27 incha allah fekk délégation yëpp war a daje fële ci Mbour waajal ñu dugg si après ay pesage préparé daal commencé compétition bi vendredi soir. waaw kon fi mu nii moom <laughs> lay jeex na ay sa waaw jeex na le 27 incha allah loolu mooy am ci moom la ñuy commencé ñëw nag def pesage yeeg yu mel ne gi noonu ak joxe liste yeeg yooyu. muy loo xam ne lu am am solo lay doon muy drapeau chef de l' état war a amee ca Mbour ah kon loolu dina am solo lool vraiment muy lu nar a neex et puis tamit yaakaar naa ren comme ni ma ko waxee nag ay sa man <laughs> bool bool laa ak yaay laa dëkk kon région de Diourbel nag laay supporté xam nga du ma supporté mais bi yoon moom damay supporté moom ah. région de Diourbel ah Diourbel laa dëkk te drapeau chef de wax ku nekk ak sa région. Ah, ñun bàyyi ñu jàpp si Dakar rek waaye bu paree ñu génne leen Dakar. yow amul problème Diourbel laay supporté mais nag yàgg-yàgg moom am ngeen droit supporté waa Dakar parce que yéen waa Dakar ngeen mais man moom maa ngi si kii bu Diourbel ba daay sa fay <laughs> na leer. waaw <laughs> ah, Babacar ba tey ku nekk fi nga dëkk foofu nga am foofu sa identité ñu nangul la rek waaye tamit ñu dem si dimanche incha allah 23 juin di journée boo xam ne Mame Diarra a tudde na ko ki nga xam ne mooy. Euh, Pape Thialis Faye di suñu directeur général mais tamit euh, di ko xam ne nii am na lu mu bëgg ci làmb am na lu muy def ci làmb mu nekk journée buy am fële ci Adrien Adrien Senghor incha allah mise bi 500000 francs waaw maam Diarra moom tamit ñu koy nuyu di ko encouragé parce que li tax mooy jigéen la bi nga xam ne nii mu ngi dóor waaram ci beneen côté ba pare di jël xaalisam di ko dugal si làmb loolu rek jar na saluer ci soxna. ñu ko ñaanal journée boobu du dimanche yàlla na ko réussir ba tey nag mu delloowaat tudde ko Thialis Faye Pape Thialis Faye di euh, président directeur général du Leewtoo yaakaar naa Pape Thialis Faye tamit ci làmb duñ ko ci laajte léegi ndax am na lu mu ci marqué daaw ci ay combat yu tëwoon mu ñëw décanté ko tëgg ko ñu ne déet ne waaye mu jël site bu nga xam ne mooy fi muy waxee muy Leewtoo def ko 100 pour cent làmb léppi làmb loo soxla fekk ko fi kon buñ la lu a am la kon la amul affaire u président ak directeur dundut ak ñun loolu li mu dund ak ñun mooy nit entre frère entre famille ak na ak sœur ak yaa xam jàppal bàyyi te loolu nekk li nga xam ne soxla nañ ko ci kilifa nekk nit bu oyof oyof ñu koy nuyuwaat di ko ziar di ko ñaanal jàmm ba ay mébétam yàlla na ko ko yàlla dimbali ba motli ko li mu mébét ci Leewtoo production ak Leewtoo yépp ak mouvement boobu mu yore muy miir mais tamit di nuyu collaborateur am muy tonton Diaw moom it lañ koy wax parce que li tax mooy borom ADN waaw moom daf ñuy jàppale bu baax a baax a baax tonton Diaw am na solo trop ci kilifa nga koy def ñi nga xam ne say employé ñu dem ki nga xam ne mooy Iba non Iba day dem Iba yi jiitu mooy xaal yoon bi calis ñëw jàll kon Iba day dem ñëppay dem bu sawee suñu borom. waa miir ñëppay dem ñoom mato ñoom Eliane ak Nicole ak tout Dior kenn du manqué ah ñëppay dem incha allah. waaw incha allah yàlla nañ si yegg ak jàmm ak salaam baab kaw ñu daal di tëj ak li nga xam ne nii mooy euh, hommage bi su nga xam ne suñu lamb rendre na ko ki nga xam ne mooy Père Mor Fadam daal di fiy jóge mu ñëwaat euh, ci parcours am ci dugam si làmb dugam si avec frappe carrière internationale bi nga xam ne def na ko li nga xam ne def na ko ci judo def ko ci boxe ñëwaat ci li nga xam ne ay combat phare lañ ci carrière am diggante ñoom Double Less Manga Tapha Gueye ñu ñu mel ni noonu. ñëwaat diggante mag Tyson nga xam ne jàppoon na ni moo nekkoon déception wu carrière parce que ni combat bi demee woon gis nañ ko ba mit tamit mais ñu xamal ni amul regret. ci làmb amul regret parce que tey lu mu am même ginnaaw bi mu bàyyee làmb li mu am yëpp làmb la nit ñi ko bëgg di ko teral lépp si làmb lañ ko xamee ci làmb lañ ko terale ñu koy ñaanal rek encore une fois ni ñu ko waxee woon rek yàlla na ko yàlla jéggal te yërëm ko te xaare ko aljana mook bépp julli bu tëdd ci suuf parce que loolu rek moo fi des actuellement ñaanal ko ah moom nag ñaanal ko pour man ah dana yomb parce que li tax ma naan euh, yaru dafa am solo trop rawatina mag. xale bu yaru baax na lool waaye mag moo rew itam defe naa ne ci la xale xale ci la xale di jànge yar te moom yaram Sénégal yëpp constaté nañ ko ak kurusam foo ko fekk muy sabal boromam mm-hmm. nekk vraiment nit ku nekk exemple tey nag kon wuyu ji na boromam yàlla na ko yàlla yërëm papier boobu nag am na solo boobu sunu làmb def ñoom tamit ma leen di remercier wala ñu leen di remercier parce que yow yaa fa nekkoon comme ku lig ku fa daan liggéeyee jóge fa tey mu nekk nga defoon gëstu boobu seqoon ak moom waxtaan boobu mu wax la lépp ñoom ñu reprendre ko tey elo ko suñ jugal kon ñoom tamit yaakaar naa dundalaat nañ sa tur foofu ay sa fay waaw loolu nag am na solo parcours bi fi mu jaar judo beeg li ko dugal si làmb ak jeux africains yu mu bokk adversaire am yi mu bëree loon mu nekkoon lu méttee métteeg yooyu lépp loolu mooy ne àddina lépp day jeex li am solo ma daal mooy aysa fi ñuy jaar nañ fexe rek mu rafet te bu ñu tooñee nañu jéggulu yaa ngi dégg bu ñu juumee nañu nangu ne dañoo juum loolu dafa am solo si doomu aadama parce que nit moom doy wuñ ko lenn dul daal njariñ njariñ nag la ci jiitu mooy pour man jox nit ñi cër joxe respe dafa am solo trop trop bu ko defee di nga mën a jariñ sa bopp jariñ doomu aadama yi waaw Babacar dañuy daal di tàggu ñi nga xam ne ñooy suivre Leewtoo TV waaye tam di ñaanal Père Mor Fadam rek fu mu nekk gënal ko fu mu jóge yàlla xaree ko àjjana jamono ci àddinay Firdawsi bi nga xam ne moo gën a parce que tey tamit euh, la sarax si fële ca Géejawaay waaw ñu koy fàttali ñu mbokk yi nga xam ne rek ñoo nekk ci ñooy dund làmb tey sarax bi fële ca Géejawaay di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi bëgg Leewtoo TV di safoo Leewtoo TV waaye tam Babacar di tee un joyeux anniversaire sama doom sama sama xarit Adja Daado Kan di ko ñaanal yàlla deux ans yi muy féete yàlla na ko féete ay at yu bëree bëri bëri ñu dund ba muur ko mu sëy yàlla defal ko xéewal yu bëree bëri dund ba teral ay waajuram waaye itam damay anticiper ci ki nga xam ne nii mooy ndoxe di sama rak sa si man rëkk daal di topp ci man nekk fële ci itali ma koy ñaanal euh, chéri am xar gay gudd fan ak wér yàlla may la si njaboot bu barke ci sa sëy boobu may la si lu kawe sa njot ubbil la buntu wërsëg ak xéewal yu yaatu yaatu nga dund rek ba njaboot gi wër la ba di la teral incha allah amin waaye Aïssa am na solo trop waaw am na solo trop vraiment di nuyu sa famille yëpp comme ni nga ko waxee sa doom jooju anniversaire tamit yàlla na ko yàlla def mag te def ko magum lislaam ci kanam ay waajuram ngeen fekk lépp parce que loolu moom moo am solo waaw àddina moom li fi nekk comme li ma waxoon sànq rek yar dafa am solo trop si doomu aadama kon yàlla na yàlla def daal li ñu gis ci yow ci yar yàlla na ko yàlla def si moom wala lu ko raw sax di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy ñëpp mais tamit caat dama koy laaj sama ki may waaj a may wala ki ma mer di waaj may caat fay maa lay nuyu bu baax a baax caat sama séeréer la moom lañ may may yàgg <laughs> nuyu ñuy suivre ci Leewtoo TV yëpp ah fu ñu mën a nekk rek à travers la moom di leen balu àq si njuumte yi ak yi nga xam ne ay rëcc rëcc lay doon ay nit la ñu matuñu mm-hmm. yàlla moo ñu binda noonu mais di nuyu ku mu mën a doon rek ñoom Khady Rose Ndiaye duñ ko fàtte tuuti yaay Sarr xam nga ñoom ñëpp gars yi Ousmane Diop ñoom ñi nga xam ne ñooy ndongo Fall Italie xam nga da baax fa nga xam mooy Norvège képp ku mën a doon daal El Hadj Ndour Dubaï fu waaye nekk di ñu suivre rek waa Côte d'Ivoire ñoom Seydou waa Gambia fàttewuñ kenn waaye sama mag tamit sama gayan Fallou Seck Fallou Torino maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko souhaiter événement bu mu jubal tamit yàlla na ko yàlla def mu am si ndam bu baax a baax di nuyu ñëpp Mor bi nga xam ne Mor tamit nekk Mor bu ba ba Paris la France ku mu mën a doon Babacar a ngi lay nuyu waaye mention spéciale tamit <laughs> Aïda <laughs> Aïda fii def non du question de jële c'est que olof Njaay ko wax xam nga boo gisee ne da nga naan ne nag ay saa ñëw indi la fi indi fi ay matt yu doy doy waar ak ay ton yoo xam ne boo xëyee man léegi ndekkeetuma fenn su ma ñëwee ci ton yi ay day rek laay xëy dafa sama mburu ba mu baax ndekki ba suur hmm. door a mën a wax kon kay Aïda mention spéciale Aïsa Aïda saako bu deful du taxaw <laughs> waaw te Aïsa mooy da mooy def ci saako bi dara hmm. <laughs> kon Aïda jërëjëf waaw hmm. a ah, jërëjëf comme ni ko eh, Leewtoo TV yëpp di Leewtoo bi yëpp di ko a jërëjëf ci teraanga yi nga dëkkee ak waa Leewtoo rendez-vous ba lundi incha allah.